limee juum waaye ay fra ay md ay euh, Y'en ay euh, doy na ak keneen ak keneen duñu ay parti politique mu am ay parti politique à côté li ñu war a def nag ba loolu lépp ñu taxañ ko mu doon benn doole boo xam ne ñi ci nekk ñëpp dinañ gis seen bopp ci ñuy liggéey mooy nañu fexe ba jiital esprit ni benn lañu ci opposition bi te benn objectif lañu am mooy réew mi nañu fexe ba li fi nekk te baaxul ñu jëlee ko fi waaye nañ ko teg définitivement sur les rails moo tax yéen je vous rends hommage vous la jeunesse sénégalaise yéen jeunesse sénégalaise je vous rends ngeen war a xam yéen ñan yéen yéen ay askanu Sénégal yéen ay plus de 60 pour cent de la population yéen yéen a toll ci ndaw foo xam ne ku bëgg a defar réew yéen a war a wéeru kon su ngeen demee ba jël conscience te li leer ba leer mooy tey la jeunesse a une conscience politique parce que ci passé bi dañ doon wax ni les jeunes n'ont pas de conscience politique les jeunes ñoo dul bindu ci liste électorale yi les jeunes ñoo dul voté ji tey est-ce que jeunesse boobu moo fi nekk vous avez pris conscience de votre responsabilité historique que mënatu leen toog naan ñëpp a yem jàpp seen ñàmbur les mêmes nekk fi depuis Senghor ba léegi même problème yi ñu koy jànkonteel waaye dama leen bëgg a leen lu am solo préparez-vous au combat waa ji ñu jàmmar lool waa ji ñi nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo ku yaakaar ni wax ju neex ak taal climatiseur toog sa salon boo ko fi jëlee ndax nga sa bopp bëggoon naa leen wax benn discours bu tey bi waaye on est obligé d'être réaliste ab président de la république bu demee bay recruter ay nervi kooku narul jàmm ci réew mi kon waajal leen seen bopp chaque jour chaque heure chaque minute te préparez-vous au combat te bu leen déglu nag ñi toog naan leen way yéene yee fitna jàmm nangam nangam parce que Sénégal mooy réew moo xam ne ki yor nguur gi lu mu def rek baax na ñëpp gis nañu mu jël ay samba booy di daal ci kaw askan wi est-ce que ngeen ko nangu préparez-vous au combat parce que ni ngi leen di gis yëpp nag benn poignée la li mu yor ci ay nerf bi yëpp weesuwul cent cinquante wala deux cent vous êtes des millions loolu war leen jaaxal donc préparez-vous ocomba parce que Macky Sall ci nii wala nele dina abal réew jox nañ tey lan la lan nit doon jàmbat 2011 te doublé wul wala triplé wul wala sax multiplié wuñ ko par 10 tey en 2021 nañ ma citer benn exemple rek ba pare nga ne doo fi jógee te ku wax nga dal ci kawam est-ce ngeen ko nangu. kon ñun li ñuy xaar ci yéen li ñuy xaar ci yéen mooy ngeen préparer parce que am réew li ko war a defar dafa laaj sacrifice na ngeen préparer ci sacrifice yooyu waaye sacrifice yooyu du am njëriñ lu dul nag. ma delloo ko ci sama mbokk homme politique yi askan wi dafa doyal ci xeex ba jëlee fi dara teg fi leneen les mêmes méthodes reprendre les mêmes nga reviennent ñu defaat le mêmes choses ñu war a reprendre le combat dinañu xeex ba jëlee fi Macky Sall de mais kenn dootul nangu cette jeunesse ne l'acceptera pas nit ñëw toog andi sa njaboot andi sa famille jaay suñu ressource naturelle jaay suñu géej surfacturer les marchés publics instrumentaliser la justice ku wax nga dal ci kawam di di pourchasser les les opposants di tëj nit ñi est-ce que di ngeen ko nangu dama ne Ousmane ko bu dee yàlla dafa war a def mu nekk président amatul état de grace amatul ñu naan nañ ko may day liggéey ku ngeen gunge ba mu nekk président it son pied votre pied bu leen ko may une minute muy def lu ko neex parce que réew lu koy defar du